inauguration autoroute Ila Touba soxna maam Xari Mbàkke wane boppam gannaaw ba nga xamee ni kon dañ ko dénk organisation bi kii nga xam ne sët la ci Cheikh Ahmadou Bamba waaye di responsable politique ci APR daal di génne mbooloo mu takko takku soxna maam Xari Mbàkke dellusiwaat ci solo si nga xam ne autoroute bi am na ko gannaaw ba nga xamee ni jaajëfal na président Macky Sall. ndax tey dañoo wax ne que tey day bisu mbégte ci population Touba day bisu mbégte ci yoonu Mouride ndax comme niñ ko xamee autoroute bi euh, bi ko Serigne Touba di ñaan ci xasida gi ñuy wax Matlabul Fawzayni boobaag léegi ëpp na téeméeri at kon bu sottee ci ayub Serigne Mountakha lii day njariñul day day mbégte Mouride yi tey moo tax Touba gépp mobilisé wu rawatina nag chauffeur yi fédération transport bu Touba ñoom tey dañu ne ñoom woote bi tëli bi ñoom lañ ko defal moo tax ñoom ñooy njëkk a xëy wane seen mbégte ci biir Touba gépp euh, ngir xam li leen président de la République defal ah beneen bi ci des tamit ñuy gëm ne que ministre du transport muy Ablaye Daouda Diallo euh, recevoir na len waxtan na ak ñoom wax na len ne autoroute bi président dafa wax ñu accompagner ko ak ay mesures d'accompagnement moy changer parc industriel bu Touba bu ville sainte bu Touba. parce que président bi ñu ciy waxee daf né ma man de bëgg na développer Touba ba di nga xamé né bo tegee sa tànk Medinatul Munawwara jàkkee sayyidina mohammed ja sa xel yëpp day dem ci jumaay Touba. noonu doomu sëñ Touba yi liggéeyee ñaari jàkka yi ñaari jumaa yooyu fas yéene naa changé ville de ba nga xam ne boo tegee sa tànk ci aéroport Médinatu Munawara ba boo tegee génnee autoroute Ila Touba dugg Touba sa xel day dem ci Médinatu Munawara ndax ni moom bëggee changé ville de Touba loolu nag bu ko bëggee def foog mu changé euh, parc en parc automobile bu Touba mooy euh, transport taxi Ila Touba yi transport urbain bi taxi yi daw ci biir Touba yooyu yëpp jël na ci ay engagement fas yéene ci andi ay projet yoo xam ne yaakaar naa ne des na tuuti boo ñëwee Touba doo xam metti euh, parc automobile bu Touba loolu nag ñu ci gërëm président à l'avance ndax xam nañ na moom lu mu diggee dina ko def ndax homme de parole la di ko jaarale ngërëm loolu ci ministre am Abdoulaye Daouda Diallo et puis daa xam ne transporteurs yëpp mobilisé wu nañ pour falaat ko 2019 au soir du 24 waaye projet yooyu ñun ñëpp ñu ngi xaar vraiment muy doon loo xam ne lu am solo lay doon ci dëkk bi. bien sûr format waaw formation yooyu moom ministre bi joxe na accord ba noppi ministre bi joxe na accord am ba noppi xam naa ne ci mois de janvier bi dañ démarré formation yooyu mu doon formation yu am solo yoo xam ne chauffeurs secteur yëpp la former parce que ku nekk xam ne dawal ci autoroute ak dawal ci voie normale nu roowul kon ñoom ñiy transporter nit ñi vraiment ñoom ñoo la ñu war a njëkk a après sax dinañ ko gën yaatal ba nga xam ne bu fekkente ne si yeneen chauffeurs yi nga xam ne ay chauffeurs individuels lañ bu bëggee sax dinañ mën a dugg ci formation boobu mais formation boobu moom accepté nañ ko ba pare dina am léegi laata inauguration bi ci ngoon si ci bëccëg gi ñi nga xam ne ñooy transporteurs yi te nekk ci ginnaaw soxna Maam Xari Mbàkke jot nañu amal ab caravane bu am solo ay oto yu takkoo takku ñëpp di wiiwoo di bravo président Macky Sall Pape Seck ak ñi mu àndal di wax ne daal taxawaay bii nu am dan ko fas yéene wéyal ba élection présidentielle 2019. waaw ñun daal ñun njabootu transport yi yëpp mën naa wax euh, Ila Touba yi mooy taxi Ila Touba yi urbain yi. taxi yi nga xam ne ñoo ci bi dëkk bi camion béni yi Mbacke Touba yi ak camion vidange yi ak regroupement transporteurs yi nga xam ñoo nekk département bu Mbacke dal ñun ñëpp ñoo àndandoo doon tay mobiliser 120 véhicules ëpp na ko sax ndax ñu bari dañoo ñëwaat dañu il faut ñu bok ci caravane bi presque mën né 300 véhicules ñu def tour Touba yëpp pour euh, jappalé sëñ bi ci wotam bi nga xam dafa wo mourid yëpp ñu fekk ko ci fi nga xam moy Ila Touba bi ngone ñu wo transporteur yi wo suñu mbokk wa Touba yëpp lolu nak ñu def ko ci touru transporteur yi ak soxna maam Xarim Mbacke bi nga xam ne moom lañ ci àndal ak ndimbalul ministère des infrastructures Abdoulaye Daouda Diallo ñu di ko sant loolu daal moo taxoon ñu ne nañ daje tey euh, joxe li nga xam ne nii mooy sunu pas-pas ak sunu yéene ci jàppale sëriñ bi jàppale président jàppale soxna maam Xarim ak ministre bi ba ñu am réussite ci li nga xam ne mooy inauguration bi leneen li topp tam mooy ñaax suñu mbokk chauffeur yëpp ñi nga xam ne dañuy utal si li nga xam ne mooy Ila bi pour que buñ ci jaaree ñu sàmmonte ak lépp li nga xam ne ndigal la ak tegtal yi nga xam jox nañ leen ko te nañ ne Euh, dinañ ko jëfee ci li nga xam ne mooy euh, Ila Touba bi bu fekkee ne ubbi nañ ko bañ commencé cee jaar. ndax jàpp ngeen ne amal na leen njariñ bu bëree bëree bëree bëri ndax da nga doon def 4 heures de temps 8 heures de temps léegi 1 heure 30 2 heures de temps nga dem Dakar ñëwaat euh, dina dina dina yaxanal sa coono yaram dina yaxanal coono oto bi dina yaxanal sa poche ci carburant bi nga xam ne ñoo ngi ko doon consommé ak insécurité bi nga xam ne am na sur la route di daw topp ci camion di doublé yooyu yëpp du ci am amul intersection amul rond kon ñun mën nañ ne mel na ni euh, président ñëpp la ko defal waaye ñun dañoo jàpp ne ñun la ko defal moo tax ñu ne balaa kenn def dara ñun transporteurs yi dañoo àndam la ak soxna maam yi woon président ne ko ñun nii ñun ñun la ko defal kon ñun ñoo ci njëkk a def suñu participation. Euh, mu mel ni li taxoon ñu def lii réussir nañ ko mooy gis nañ ni li président def defalu ko euh, ila waa Touba rek mën naa ni monde entier la ko defal. mën naa ni tamit sénégalais yëpp la ko defal parce que bari na ñoo xam dañ daan jóge fii di dem Fuuta di jóge Dakar di dem Fuuta di jóge Dakar di dem euh, Tamba di fa jóge di dem Mali léegi nag mm, dalee na gën a yombal seenu dem ci Ila Touba parce que léegi foo daan jaar di def deux heures de temps trois heures de temps comme ni ko kooku waxee léegi yaa ngi fa war a jaar léegi plus une moins une heure de temps kon loolu ak cant la ci ñun goo xamante ne bii ne am na tàmbali mais amul fu muy yem ñun waa Ila Touba nag ñu niy wax allo Dakar ñun moom lan ñun ñoo gën a sant ci loolu parce que dafa mel ni ñun la ko defal

jël jël jël ci sunu tur ànd ñun kon sant nañ ko ci gërëm nañ ko ci sant ci soxna maam xëri mi nga xamante ne bii ne moom la ñu booleel tamit ñu ànd ak moom ci liggéey bi te incha allahu rabbi engagé woon nañ ak suñu diggante moom te lépp loo xamante ne tamit euh, moom diggante woon na ko ñu nit mi ngi koy def te dara taxul ngir sëriñ Touba doo nga taxoon mu di ko def te ba muy ba muy waxi damay ànd ak yéen sëriñ Touba ànduma ak yéen ngir benn politique dara dama ànd ak yéen ngir liggéeyal sëriñ Touba ñu changé dëkk bi changé comportement dëkk bi ngir transport dëkk bi nekkaat beneen transport dina moderne dina ah, dina méngoog bi te loolu mi ngi ci mi ngi ci tànk yooyu incha allah. waaw autoroute bi amal na ñu njëriñ waaye autoroute bi ni ma ko gisee ñëpp la amal njariñ amal na njëriñ euh, jaaykat yi amal na njëriñ même yéen journalistes ndax dina gën a yombal dama ak dikk bi mais aussi amal na njëriñ autorité religieux ak étatique yëpp ba tax na investissement bu am solo la boo xamante ne bi président de la république investir ko fii loolu mënuñoo def lu dul saluer ko ak it maanaam encourager ko nit nag bu la defalee loo mënul. yow li nga ko war a faye mooy nga xool yoon woo jaar pour jàppale ko ñun nag suñu yoon ci président de la république yàlla ci soxna moom Xarim Mbàkke mi la ko jaarale ñu gis na moom kilifa la bu ko neexoon mënoon naa defi leneen lu bokk dëkk lii muy def mais mu ne Serigne Touba ko ñor maamam moo ko ñor ba tax na mu engagé engagement bii mu def donc ñun aussi secteur transport Touba boo xoolee onze organisation ñu ngi fi te onze organisation yooyu tey bokk na ci organisation yi gën a bari ëpp doole ci dëkk bi te ñu ñun ñëpp tey ñu ngi ci ginnaaw soxna maam xari ñu koy encouragé te di ko xamal ne bu mu am lu mu lu muy tiit bu mu am lu muy ragal mobilisation mu amoon solo lool ndaxte gën ngaa néew moom soxna maam Xari Mbàkke génn na ñeenti téeméeri kaar rax ci dolli mu ànd ak ak i taxi mënees naa jàppit ci li nga xam ni kon jot na ko def te Sëriñ Muntaxa Mbàkke sant ko ko mooy wàcceeb kaamil bi nga xam ne doon nañ ko amal ci këram waa raabital Qur'an bi nga xam ne Sëriñ Xaali Jaxate moom moo ko jiite daal di jàng ñaar fukki kaamil ak juróom-ñett waaye it ñaar fukki Matlabul Fawzeyni ak juróom-ñett ألا إنني أسمي على خير ملهم ولا شهيد الخلق من فقد أنهمي فقد أنفسهم